waaw euh, jërëjëf en fait euh, man euh, à la base journaliste la euh, def euh, ben kii ay un peu ay études après def ay études de cinéma documentaire léegi dama toog rek comme tout le monde dégg ci rajo yi ñuy wax benn incident bu am rëbës ñaari xale décédé ci ñu ne dañ leen courant moo leen masse en fait ci cellule bi ñu leen téye woon Euh, xale yooyu nag c'était des ils étaient jeunes en fait kenn ki 18 ans la am keneen ki 19 ans la ñu ramasse leen ci mbedd mi tëj leen yóbbu leen rëbës euh, ba incident boobu am fa ñu décédé si euh, bi mu amee nag bon gis naa réaction yi en fait et comme nit nit daal da ngay am yëg-yëg mhm. bon je me suis intéressée à la chose parce que je me suis dit que ni Sénégal nu muy doxee bon voilà dem prison en fait comme koo xam ni kuy dox ci mbedd mi ñu ramasse la yóbbu la rëbës nga décédé fa donc ça veut dire que ça à tout le monde man natt ko ci sama bopp xam ni vraiment c'est un incident euh, ba nga xam ne dañ ci war a gëstu moo taxoon ma ne comme man réalisatrice la euh, peut-être moyen boobu laa am pour exprimer un peu li ma xalaat mhm. donc moo tax ma dem commencer def ay investigation ci situation carcérale mooy situation prison yi. Mhm. lan moo fay xew. Eh, parce que kii bi bi mu amee incident bi mu amee peut-être presse bi wax na ci wax na ci tuuti mais après on est passé à autre chose. donc man dama doon xaar bon peut-être que affaire bi am beneen euh, incidence ci suñu société parce que quand même c'est grave que ñaari xale ñàkk seen bakkan dans ces conditions mhm. loolu warul am. warul am ci société ba nga xam ne euh, yaa ngi bëgg nekk une société humaine une société ba nga xam ne comme la nôtre nga xam ne ñun ñëpp ay mbokk lañu ñu ñëpp xamante nañu mm-hmm. donc quand on des gens de cette façon c' est normal que nit ñi interroger wu def seen introspection xool en fait lan la ñu war a def pour loolu donc film bi ma def Rebeu Chambre 11 c' était surtout pour euh, évoquer mémoire ñaari xale yooyu mooy euh, Cheikh Ndiaye ak Babacar Mané mhm. et surtout interroger en fait la condition de vie des prisonniers lan mooy xew suñu prison yi naka ñun lan nan la ñuy traité suñu ay prisonniers est-ce que boo demee prison voilà ça veut dire que yow bokkatoo ci société bi c'est pas ça. Oui. donc il faut que mu am ñu ci def et donc vraiment film bi c'était un peu autour de ça pour dire en fait man sama xalaat ci euh, euh, condition ci ni ni ñuy traité prisonniers yi. mais au-delà de ça vraiment naka la suñu société fonctionner parce que c'est un fait de société donc c'est vraiment toute la société qui est impliquée